face euh, mbokk yi dellusiwaat na tey euh, ñi ngi fi nga xam ne mooy euh, Cypress sunu gan nag ku ngeen xam la waaye gën ngeen ko gis lool te ñu bëri jàpp nañu ne daal daal war nañ ko mën a dégg ci yu mel nii muy Thierno Lo nekkoon fi ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak artisana bokkoon ci parti démocratique sénégalais tey mu bokk ci kàngam ñi nga xam ne ñoo sos bokk gis-gis mu ànd ci ak ñu mel ne ay Pape Diop ak ñoomin seen Euh, moom Thierno Lo euh, la ñu ñëw seet si tey euh, pour laaj ko d'abord lu tax ñu gëj ko dégg xool également li nga xam ne mooy xalaatam ci actualité nationale bi mu waxtaan ak ñun ci yu bari bokk na ci ni nga xam ne moo tax ba mu créer mu bokk si ñi créer bokk gis-gis ak tamit ay mbir yoo xam ne mm, ñu bari bëgg nañ si am xalaatam bokk na ci li nga xam ne mooy euh, ancien euh, ex méridien di King euh, nekk actuellement King Fahd Palace te moom moo ko jox ki nga xam ne mooy benn sénégalais bu ngànk benn mbir bu tuddu Sénégal hôtel yu bëri daal yoo xam ne fas nañ ko yéen waxtaanee ak Thierno Lo ñu jàpp nag ne daal dina leen neex lool kon mbokk yi face to face la ak mbokk yi face to face euh, dellu si ni ma leen ko waxee ak euh, monsieur le ministre euh, Thierno Lo moom. moo fi euh, yore woon euh, li nga xam ne mooy artisanat ak tourisme euh, nekkoon également ci parti démocratique sénégalais tey ji nag mu bokk ci kàngaamu bokk gis-gis ànd ci ak yeneen ndaanaan yu mel ne ay Pape Diop ak ñoom Mamadou Seck ñoomin seen tey nag mu defar ñu faveur bu rëy ñu ko si remercier ndax dafa xaw xaw ni ñu koy xaw a jagadi <laughs> waaye terewul mu mu may ñu exclusivité boobu monsieur le ministre Thierno Lo ñu ngi lay remercier ci euh, li ñu may tey di la bàyyi tamit nga nuyu ak sénégalais yi. waaw Astou ma ngi lay euh, remercier. di profiter ci émission bi di nuyu sénégalais yëpp parce que defe naa ni bañ ma gëjee gis. Mhm. yàgg na. Mhm. Euh, élection législative yi jàll na gisuñu ma. Mhm. loolu yëpp li ko waral mooy yàlla suñu borom dafay dem ba yàgg mu am am ndox bu muy teg nit ñi. dama amoon ay jafe-jafe ci sama yaram. moo taxoon ba gis ñu ma ci élection législative yi. Mm-hmm. mais nag euh, maa ngi sant yàlla ci bi ma may tey jii ma mën a toog pour dellu si waat participer ci waxtaanu euh, réew mi. Mm-hmm. war cee joxe suma xalaat comme ni ma ko daan defee. parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. dañ ko war a construire. kon à chaque fois war nañu bu fekkee day dem ba nekk ci jafe-jafe yi ba diggante yi mu toll ñu war cee joxe suñu xalaat wax ñun dem nañ lañ ko gisee. Mm-hmm. monsieur le ministre euh, Thierno euh, lan lan moo la dal ba ñu gëj a dégg ndax gis naa mënuñu ko war wane ci ci caméra yi waaye bekke nga yor. ak yow ni nga buyaawee euh, léegi daanaka daal yaram mi daal wàññeeku na daal macha allah. waaw loolu li ko indi mooy li ma la wax rek mooy euh, bi nga xamee bi leen yàlla dafa ne peuple sénégalais bi. Mm-hmm. dañoo dem ba mettre fin suñu contrat à dure déterminée yi nga xam ne bi moom la ñu dënkoon bi ñu ne yéen li ñu leen dénkoon ci ngeen di liggéey doy na léegi teg leen leng yi ñu jëlut ko jox keneen man damaa dem ci li ma masoon di wax rek jox wax ne am na fu ma jógee am naa métier ci liggéey rek laa xam. moo tax damaa delluwaatoon ci li nga xam ne bi la moom laa moom dem di fa liggéey ba ma demee di fa liggéey nag fa laa amee benn chute chute bi ma fa amee moom indil benn fracture bu tax ñu defal ma benn opération boo xam ne bi la moo tax ma tëdd pendant deux mois mais loolu tam maa ngi koy sant yàlla suñu borom parce que dafa am peut-être lu mu gën mais terewul ma war a continuer di xool politique bi ak réew mi naka lay demee pour mën cee joxe suñu xalaat mais nag avant may am chute boobu fekkoon na ma ñëw participer woon ci bokk gis-gis ba bokk gis-gis defar list investiture yi ba pare ba ma ne léegi nag ca suba ga laa war a dem Daaru Musi parce que depuis second tour ba dew ma fa woon ma waroon a dem nag pour fekk ña ma fa àndal ma seet ak ñoom naka laay partagé loolu nga xam ne ñu ngi koy soog a def mhm. far yàlla suñu borom def moom mi nga xam ne bi dara tëwu ko accident boobu arrivé ma mu dem tudd ba mhm. tey jii nag Euh, nga woo ma ma ni quel que soit sama état de santé ni nga xam ne noonu laa nekk acteur politique. Mhm. réew mi di dox. am ay nit yoo xam ne ñu ngi may laaj ci ñu ngi may naan ana Thierno fan la nekk. Mhm. ma ni lu ma mën di toll toll toll dinaa jóg pour wax. pour joxe sama xalaat ñu xam ne maa ngi sant yàlla te maa ngi nekk fii di participer ci débat yi nga xam ne moom mën na jëlee Sénégal ci kanam. xam nga ni nga ko waxee sànq sénégalais euh, euh, yi dañ lay bëgg di dégg tout temps ndax mm-hmm. euh, am nga courage bi te tamit ñeme nga assumer yu bëri ñu bëri nag jamono ji dañ jàpp ne je ne sais gëm nga ko wala gëmoo ko mais ñu bëri dañ jàpp ne est-ce que amul affaire mystique parce que yëf yi ni mu ni mu ñëwee ndax ngeen créé benn enfin bokk gis-gis euh, yow bokk nga si ñi si gën a fës daanaka euh, yaa porté woon combat bi communication bi ak yooyu yëpp euh, jékki-jékki lii dal la ñu bëri jàpp nag ne yëf yi maadu dafa am ay korte yu la gaa yi ay bomb ay missile yu la gaa yi dóor ba nga xam ne daal pour noppi loola pour wàññi tuuti kàttanu bokk gis-gis. loolu xam nga am na ay journalistes yu ko bindoon ca itam Sénégal moom comme dafa nekk réew moo xam ne bii. irrationnel bi daf ci am benn doole trop ñu bëri mën nañoo gisa noonu mais man euh, xalaatewuma ko noonu parce que ku gëm yàlla la te yaakaar naa ne sama gàllaaj mooy sama xol duma toog ba sentir ci un minimum boo xam ne bii am na loo xam ne yoral naa ko ci doomu aadama ou bien mu yéene ko ci doomu aadama yaakaar naa ne nag sax bu ma amee xol ba laab noonu am yéenu ju rafet noonu loolu war na nekk benn gàllaaj boo xam ne bii yëf yu mel noonu def naa ne du war a mën a dal suma kaw kon damay considéré nag la lu suñ borom tuddoon rek la muy dogal boo xam ne waroon naa agsi mm-hmm. ma ciy sant yàlla suñ borom parce que manoon naa am leneen lu ma arrivé mm-hmm. loo xam ne du ma toog fii tey di waxtaan ak yow mm-hmm. waaw donc man dogalu suñ borom rek laa ko teg voilà monsieur le ministre Lô yaa ngi ci face to face kon ñu door waxtaan bi euh, élection législative yi romb na euh, li nga xam ne moom la leen sénégalais yi nattal yéen bokk gis-gis mooy ñeent député fi ngeen xam ne foofu ngeen jóge woon muy parti démocratique sénégalais ñu nattal leen douze députés Benno Bokk Yaakaar di coalition bi nga xam ne euh, moo ci gënoon mag ñu jox ko cent dix-neuf euh, députés gis nga tamit résultat yi ni mu demee daal gis nga ko euh, ci sa xalaat euh, ci nga li nga xam ne yow moo la concerne dëgg-dëgg bokk gis-gis ma fàttali ne yow bokkuloo ci député ndax quatre député nga am euh, lu tax yow yow premier jàngat bi nga am ci législative yi lan la bala ngaa ñëw ci li la concerne dëggantaan muy benn bokk gis-gis ak seen résultat waaw man surtout résultat yi ni mu demee mhm. man bettu ma woon parce que ku xam politique gu Sénégal ni mu demee ak ku xam changement bu amee mhm. kenn ci ñun warul woon a mën a nattable que ne Macky Sall ak Bokk Yaakaar dañ am la majorité à l'Assemblée nationale. man bi may dem di ànd ak Bokk Gis-Gis ñuy def liste yi aussi damay def li nga xam ne bi la mooy sama warugar en tant qu'acteur politique. mais xamoon naa ne Macky Sall dafay am majorité à l'Assemblée nationale. donc xaw ma kan la bett. noo ko xamee woon bettu ma ne ma fi ma ko teg rek. mooy ci sénégalais seen bopp bu fekkee da ngay jot jël nguur. dañuy wax naan comme jox nañ ko doo jox maye bopp rocc làmmiñ boobu ñuy wax mhm. Sénégal yi dañ koo gëm mhm. am beneen bi ci dolleeku mooy soo duggee ci biir Sénégal ci suñu gox yi mhm. soo fa demee dañ lay naan ñoo xam ne ñii dañu ànd ak yow dafa yow lu nekk dañuy taxaw wax la ne la ñun kët duñ ànd ak opposition ñun nguur rek la ñuy ànd ah, pour am dara daal pour am dara parce que dañ naan tali bi war a am ñëw si ñun mhm. hôpital bi war a ñëw si ñun mhm. ak dispensaire beeg centre baak li nga xam ne bi leen ñoo doon ñun nguur mooñ mooñ moo ñu ko mën a jox ce qui veut dire que village boo fi man di dem mhm. ci ci bari quatre-vingt-dix cent pouvoir la ñuy àndal plus maintenant ñeneen nit ñi nga xam ne bi gëmuñu seen bopp gëmuñu yàlla defe nañ ne euh, lépp da nga ko war a wékk ci président de la république ñoom tam dañuy daal di commencé ñoom ñëpp daal di màbb wuti pouvoir ñooñu donc loolu yëpp boo ko combiné ak tam ñi nga xam ne bi la dan nga xam dañ koo xeexoon ba nga xam ne bi la dañ ko jëppee jëppee jëppi ba écrasé ko comme niñ ko écrasé xamoon naa xel que ni Sénégal yi tollaguñu fu ñuy demee di fàtte ba di dellu soit PDS tant que te PDS demul waat ba nit ñi gis na PDS mi li mu doon def réccu nañ ko amandé woon nañ ba peuple bi mën leen a baal mais peuple mën leen a sanctionné vingt 25 ñu ñëw ñu jëlaat majorité di leen ko joxaat ci élection législative